dañuy dikk kon wax lu jëm ba tey ci campagne électorale bi ñu nekk ni euh, ba sax jëm ci jeex jeexital gi euh, fitna gi ci am nag doon na tey ay soxna yu taxaw ngir élection yi mën a jaax ci yoon lépp lu ci nekk itam euh, fitna ñoom fas yéene nañu ko wili pande loole moom mooy taxawaayu xalaat bi ñu fas yéene jëmmal Fatou Kiné dem ak Alié def nañ ci reportage ñu ànd teewlu ko. taxawaayu plateforme bi bokk na ci dooleel jigéen ndax gis nañu seen njariñ ci lépp loo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu jàmm bu ñu seetloo premier tour bu présidentielle de 2012 yi ay fitna dong la ñu ci nemmeeku loolee tax na plateforme bi sax yónni woon lu toll ci juróom benn fukki ndaw teg leen ci terrain bi ngir ñu saytu lépp lu xew ci biir bureau de vote yi. observatrice yi boo leen yónnee ñuy jigéen sol seen tenue ñëw dugg ci biir saal yi dañuy apaiser. ku leen seen ni jigéen la ku leen seen xam ni dëgg la ñuy dox jàmm la ñuy dox. bi yoon nag tàggat bi ñu ngi ci boole taskatu xibaar yi ndax gis nañu seen taxawaay it ci biir élection yi. dañoo bëgg rekk euh, journaliste yi ñu indi jële leen ci région yi ñu mën a ànd ak euh, suñu observatrice yi liggéey sur le terrain surtout que ñu boole ci nag question genre parce que moo manqué woon doo gisee violence am. xamuñu violence bi ndax jigéen ñee ngi ci bokk est-ce que ñoom dañu koy subir ou bien ñoom ñooy ak nekk actrice tegtal yi ñu joxe bokk na ci ñu taxaw jigéen ñi ak ñi nga xamante ne dañoo amee laago ngir bisu vote yi ñu bañ a am benn jafe-jafe dañ leen di gis des fois que ni boo xëyee suba bëgg dugg togg bëgg a defar say njaboot su fekkoon mën nañ leen faciliter que ñu nekk ci kanam teel a voté delluwaat ca kër ga man toppatoo seen kër yooyu yëpp dañ ñuy def recommandation ñuy former les présidents des bureaux de vote par exemple ñu wax leen ni leen ni bu ñoo bu ngeen xëyee suba jiital leen handicapé yi wutal leen aussi bureau yoo xam ni mën nañoo am accès ndajeb ñaari fan bi nag seetlu nañu ci ñi seen xam-xam màcc ci lépp loo xamante ni mi ngi jëm euh, ci taxawu wàllu crise li ci jublu nag mooy weccoo xalaat ba lépp loo xamante ni aju ci wàllu fitna mu soxal élection ñu mën cee fàggandiku.